من قرية بير التورس على شرف وفد أبناء الشيخ أحمد بن الكرام القادمين إلينا من طوبى وعلى رأسهم فضيلة الشيخ بشير مبكى الناطق الرسمي باسم الحركة المريدية نرحب بهم ترحيبا خاصا وستتضمن فقرات هذا الصالون كلمة شعرية ترحيبية